tey mooy sunu fukkeelu bind mu ne faaidatun lii njariñ la wa an umara jële nañ ci sayidna umar radiallahu anhu yàlla na yàlla dolli koo gërëm an rasulillahi mu jële ci yonantu bi yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam ne annahu naka moom qaala wax na lamma habata ba nga xamee ne wàcc na aadamu sunu maam aadama alayhi salaam ardi jëm ci suuf awxa llaahu yàlla dafa wax yu ilayhi jëm ca moom arbaa kalimaatin baat yeenti waat wa qaala mu ne ko yaa aadama yow aadama amaluka sa jëf wa amalu dhurriyatika ak jëfi say sët fi haadihi lkalimaat mi ngi nekk ci waat yii al arbaa ya di al arbaa ya di yeent wa hiya ñoom nag kalimatun ab baat la lii boo xam ne maa ko moom man yàlla mooy ñeel na ma wa kalimatun lakka am na ci baat boo xam ne yaa ko moom yaa say sët wa kalimatun akub baat bay naka bu dox sa diggante wa bay na naasi ak diggante nit ñi wa kalimatun ak baat boo xam ne bay nii wa bay naka sama di sama diggante maag bay nii bu nekk sama diggante wa bay naka ak ak yow fa amal kalimatu ndaal baat ba allati bi nga xam ne lii maa ko moom fa hiya moom an taabuda nii mooy nga jaamu ma tushrika bi te doo bokkaaleeg man shay an dara doo bokkaale di ànd man dara wa amal kalima bu dee baat ba allati bi nga xam ne laka yaaka moom yaag say sët fa hiya moom amaluka mooy sa jëf fa ana man ujaazika danaa fayanteeg yow bi amalika ci sa jëf waa amal kalimatu lati ndaal baat ba nga xam ne bay nii wa bay ka dafa dox sama diggante maak yow am nga ci wàll mu am ci wàll fa min ka tukkee na ci yow addu'a u ñaan wa min nii bàyyi koo na ci man al ijaabatu nangu ñaan wa amal kalimatu bu dee baat ba allati bi nga xam ne bay naka wa bay na naas dafa dox sa diggantek nit ñi fa hiya moom an taadila an taadila fiihim mooy nga maandu seen diggante nga maandu seen diggante sayyidna Umar radiyallahu nee ñu moo jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi xel na sëñ bi nag euh, yéen ñiy gëstu xam-xam fii ni ni mu fiy indee xadis du topp ay silsila naa jëlee nañ ci diw wala muy topp na naan xadis bii topp nañ ko ba mu wér wala nangam déedéet moom day jëlee ci téere rek ñëw andi day jëlee ci téere borom xam-xam yi ni ñuy bindee xadis daa bokkut am na koo xam ne moom day sàmmonteeg yu bari am na koo xam nag euh, day day jël ci téere rek daal di andi. daa de su ko dee gëstukat yi nag ñoo ñooy gëstu masalan boo demee ci attibrul masbuuk bi ci la jëlee xadis bi rek ñëw andi mhm. kon nu bàyyi ci xel Seydina Omar radiallahu anhu nee na moo jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne aadama bi ko yàlla di wàcce bi ko yàlla wàcce ci suuf da ko waxyu da ko waxyu ñeenti baat ne ko yow aadama sa jëf ak jëfi say sët yépp dama ko tënk ci ñeenti baat yi ñeenti baat yi ñeenti baat yi am na ci baat boo xam ne maako moom sama àq la am na boo xam ne yaag say sët yéen moom seen àq la am na boo xam ne seen diggante la diggante nit ak moroomu nitam am na boo xam ne nag euh, da am wàll ma am ci wàll loo ñeenti baat yi boo xam ne yàlla rek moo ko jegoo ak boo xam ne jaam yi ñoo ko moom ak boo xam ne diggante jaam ñi la ak boo xam ne yàlla da cee am wall jaam ñi am ca wàll mooy doomu aadama yi mu ne ko bu dee nag li nga xam ne maaka moom baat bi nga xam ne maaka moom mooy ngeen di ma jaamu te du ngeen ma booleeg dara lii daal sama àq la da ngeen war di ma bañ maa jaawale kenn ndeke man maay buur ku man ab jaam la bu xeebu fa kanamu suñ borom kon wattandiku leen di ma jaawaleeg wala lenn wala kenn mu leen dara yàlla di ko jaawaleeg dara loolu àq la moo tax suñ borom. ne képp koo xam ne dafa faatu fekk ma ngi bokkaale yàlla kooku àjjana xaraam na ca moom àjjana xaraam na ca moom bu dee baat bi nga xam ne yow yaa ko moom yaa say sët mooy seen jëf waaw lépp lu ngeen jëf daal yéene ko moom dinaa leen ko fay du ma leen tooñ mukk wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid du ma leen tooñ mukk ngeen def lu baax ba noppi ñëw ma di leen faye leneen déedéet loolu seen àq la bu dee baat bi nga xamee ne da ci cee am wàll man yàlla ma am ca wàll mooy lan mooy ñaan ñaan yéen ko moom man ma féetewoo di nangu ñaan waaw ñaan yéen a ko moom incha allah lu ngeen ma ñaan ma may leen ma may leen boo delloo ci masaalik nag nga jëlaat teggini ñaan ndax ñaan nag dafa am teggin waaw dafa am teggin nekkul lu metti xam nga ne moos wax dëgg yàlla ki dem ci boroom alal di sàkku ci moom dara am na nu mu war a mel waaw du fa àgg nag naan ko maa ngi yow a yem nangam nang gënoo ma nang yooyu yëpp du ko fa wax <laughs> waaw doo fa nekk nag nangam déedéet waaw dëgg la waxuñu la nga toroxal sa bopp nangam déedéet da nga dem wax ful la ci yar ak teggin waaw ndegam ab jaam rek ngay mel noonu doomu aadama buy sàkk ci moroomam dara rek da ngay gis day xaw a ànd ko bi yar ngir bëgg ñu may ko waaw kon naka nga mën a ñaanee sa borom te àndoo ko bi yar moom mi aji bind ji alxaalixul baari bu dee nag li nga xam ne seen diggante la diggante nit ñi la baat bi nga xam ne mooy bu ñeenteel bi seen diggante la moo di ak maandute kon nit ñi seen biir waruñoo tooñante kenn warta jël alal kenn kenn warta tooñ kenn kenn warta jëw kenn kenn warta yàq deru kenn nangam nangam bam mat kon lii bu jagoon yàlla buñ ko joxoon lam moom bañ koo booleeg dara euh, suñ borom moom maanu na suñ diggante lépp lu nit jëf moo fay la a waaw man amila na fa li nafsihi aw man asaa tamit fa alayha kooku yàlla garanti na amul problème ak maanu am suñu biir attekat yeeg ñi am xaalis ak ñi amul xaalis ak ñi bokk ci yeex wuréeg lépp la ñuy xool daal ku tooñ ku tooñu donc waaye bu fekkee borom garam bubu daa tooñ ñu am nuñ ko négocier ah wax dëgg yàlla bu fekkee borom xaftaan booyof tooñ wala borom kumba su woyof ñu am fuñ ko jaarale loolu bu yàggee rek adduna sa day daa di xaw a doy waar day daal di xaw a day daal di xaw a doy waar ba ca tege nag mooy yàlla moom garanti na ne ud'uuni astajib lakum di leen ma ñaan ma di leen ma di leen nangul te lool moom mi ngi am ñi ngi sellal di ñaan mi ngi am saa mi ngi nangu xikmatun mën na lii xikma la tajannab na nga sori arbaata ashiyaa yenti yëf taxlus kon danga mucc min arbaati ashiyaa ci ñeenti mbir ashiyaa xam nga ne du soppi du soppi ko moo kenn moo tax euh, mënut arbaati ashiyaa i waaw boo toppoon ci euh, naxu ni muy jàngale dangay ngay defe ne ashiyaa i la war a wax waaye dëgg-dëgg naxu nag lam jàngale mooy ashiyaa moom du soppi ko moom min arbaati asiyaa a ah. na soril ñeenti mbir mucc ci ñeenti mbir te jannab na nga teet na nga sori alxasada keñaan taxalus kon da mucc minal xusni ci njàqareel xol wala tujaalis bul toogaaleeg jalisa suu aji toogaale ju ñaaw jikko taxalus kon da mucc minal malaama da ci yeddeel wala tartakib bul fàggu almaasiya mooy yàlla ya taxalus kon da mucc minal naari ci sawara wala tajma bul dajal almaala alal de tastarix kon danga noppalu a adaawatil xalqi ci noonoog mbindeef yi ñeenti mbir yi boo ko wattandikoo danga nga mucc ci ñeent bu njëkk bi mooy boo bëggee sa xol féex lu yàlla may nit yéene ko ko mu ko iñaane waaw diw mi am lii diw barki de ñoo àndoon def nangam nangam nu mën a tabax kër rom ma lu mën a yot déedéet loolu sa xol day tàng rek waaw sa xol ndax yàlla da koy gën a di yokk rek sa xol di gën a tàng yàlla ci yàlla musal waaw kon moo tax ñu ne ab sang wala ku yilif mënta nekk koo xam ne day iñaan lu nit am yéene ko ko su ko dee soxol day day féex ba ca tege nee na boo bëggee mucc ci yeddaange na nga wattandi ko àndandoo bu bon àndandoo bu bon ndax yow boo defut day def ñu tuumaal la ca ñu ñu boole leen ko ak ah, ñooy ànd kat lu ñu def ñoo ko ñoo ko déggoo woon su ko yow da ngay am kersa ñenteel ba mooy ndegam ragal bëgg nga mucc ci sawara bàyyil mooy mooy yàlla dong moo yóbbuwaate sawara waaw mooy yàlla dong moo yóbbuwaate moo yóbbuwaate sawara mi ngi mel ne niin niin bu buñ njóobee euh, ne buñ añee ba bàyyi fa ceeb ba léegi nga gis sànqale ja tàmbalee ñëw ndax niin niin rek moo leen fi andi kese buñ buñ ko bare woon fa beere ko ba mu set ñoom duñ fa jaar ndax amuñ ci soxla kon nag bàkkaar dafa mel ne mooy niin niin bii tax doomu aadama bu amee nag faaw sànqale boo duggee bàmmeel faaw sànqale ñu ñëw nag waaw faaw waaye boo demee sawara tamit faaw faaw nit ki jaar ñu jaarale ko sawara ndax lan dafa am ay niin niin sawara loolu rek lay wut sawara loolu lay wut ci yàlla musal saa borom dañuy jéggal ba ca tege nag nee na boo bañee boo bëggee mucc ci noonoo nit ñi nit ñi nit ñi di la noonoo wattandikol dajale alal te doo leen ci jox <laughs> waaw nit ñi moom problème boobu la am ak yow waaw bu ñu la gisee daal ngay ngay dajale alal ndax nit ñi dañoo bëgg alal alal ji ñu bëgg rek bu ñu gisee yow nga ëppale leen ci ba doo leen ci jox nag dañ lay daal di noonoo waaw dañ lay daal di noonoo bu koy da nga leen bàyyi alal ji rek wala la nga ci am nga di leen sédd moom nga ne ñoom dañuy xam ne am gii ngay am ñoom seenu xéewal la waaw wa maa naas fay gos bil ard bu ñu xamee ne yow mii li nga am nii boo amee rek ñoom am nañ bu ñu ko yëgee rek doo arka àlla dañuy xam ne yow sax am seenu am la waaye di dajal àlla rek te doo leen jox faaw ñu dela noonoo nag ndeysaan xikmatun lii beneen xekk xikma la salaasatun ñett tuzhibu dana dàq alhamma ñaggi-ñaggi xol wala ramma ak njàqare xal bi walis xol andi na ko sax ñetti mbir yii bu fekkee sa xol am ñagg-ñagg ak i njàqare da koy da ko jëlee suxbatul aalimi àndaaleeg boroom xam-xam buy jëfe xam-xamam wa qadaau dayni ak fay bor wa mushahadatul xabibi ak jàkkaarloog sab soppe wa shay mi ngi noonu ñetti mbir yi mooy yan koo xam ne ab boroom xam-xam rek ngay àndal di ànd ak moom waaw kooku saxul du am benn jeexi jaaxa ndax li ngay def lépp daa am fa muy tegu day tegu ci dëgg doo def dara di jël sikk sàkk ak fay bor boo amee ay bor boo ko fay da ngay féex lool waaw da féex ndeysaan day metti day metti boo amee bor boo mënta fay dana ko wax léegi kon boo ko fayee rek da ngay xam ne léegi ameelu da ngay dégg ñu naan ah man sa waaye ameelu ma kenn dara mbedd mu ma neex jaar <laughs> wax na dëgg ak lan koo sopp lool yàlla yàlla yàlla dimbalee ba nga gis ko da ngay lépp sa xol li ci nekkoon lépp day génn waaw ah, man kay moom sëñ bi ba gis naa la rek alhamdulillah tabarkàlla koo sopp mhm. nee na wa shay'aani ñaari biir nag yej lu baani dañuy ñodde alxusna njàqare ilal xal bi di ko indi ci xol bi ab famaaxu ba ca njëkk moo di bëggee mooy xemmem fii juudil buxalaa yi ci tabug way nayya wal misaax ak kaf ma al wadaa yi ànd ak way suufe daraja yi al wadaa suufe daraja ñaar yi nag dafa wuute géele ñaar yi moom dalay indil problème sa bu njëkk ba mooy euh, ku nay lool ki njóobee di waaw ku nay lool ngay séentu ci moom dara neen kooku sa day tàng ndax doo ko doo doo ca mas am la nga bëgg moom waaw ku nay lool ngay séenu nag ak tabeem di xaar ci moom dara di xaar ci moom mu dimbale la kooku soxal dana tàng ba ca tege mooy nga fekk ku ñàkk teggin ku xamut boppam nga séq ak moom kaf waaw day jekki rek daggal la aw saaga ndax moom loolu la tàmm waaw borom jikko ju suufe nga xam ne moom euh, da gis ci léeg yenn yenn ti gone yi léeg-léeg ñi euh, ñenn ci ñi dawal ay sareet ak ñenn ci ñi nekk ci oto yeeg ñu mel noona ak xeetu gaaraas yi da gis ne am na ci ñoo xam ne ne sañ nañoo séq ay saaga ba ci gone yi ne ci mbedd yeeg yépp rek waaw nga xam ne sañ na laa saaga nga ree moom mu saaga la nga ne moom dañ ko jàpp nañ koo siq loolu mooy dara wàcc kooku mooy jikko ju suufe lool jikkoy bàyyi ma sa ndey jëla jur nga ne séq nga ak nit mu mën koo daggal yow nga mën koo daggal yow it nga jàpp ne séq ngeen loola hmm. moo booy kaf xamal ñi ngay kafal moo tax léeg nga kenn rek mu wax la loo xam ne eh, tabarkàlla moo tax borom nit bu fekk da ngaa yor jikko ju rafet del ànd ak ñi yor jikko ju rafet del séq ak ñoom kaf waaw del séq ak ñoom kaf daa am ñoo xam dañoo ëppal loolu boo ko defee rek soxol xol day dana tàng xikmatun nee na kaana nekkoon na rajulun ab waay minal mutaabidiina ci jaamakatu yàlla yi laa yatakallamu daawud wax fi sanati ci at mépp illaa yawman waaxidan lu dul ndare benn bis fa ataahu mu ñëwal ko nag rajulun benn waay fil yawmi lati ci bis bi nga xam ne yatakallamu fiihi ci lay waxe waaw fa qaala lahu mu ne ko aw si nii damaa bëgg nga dénk ma xaala mu ne la laallaka amaana yow de aznabta mas ngaa def bàkkaar xaala mu ne ko naam waaw xaala mu ne ko afa alimta ndax xam nga ndax wóor na la ne anna allaha naka yàlla xad katabahu alayka yàlla bindal na la ko xaala na xam loolu tey xam na ko xaala mu ko faamal ko nag na nga jëfaat xata taalama ba keroog ngay xam ne anna allaha naka yàlla xad maxaahu far na ko xad maxaahu far na ko waaye nañu ibnu abi dunia moo ko génn ca téeram ñu tudde at tawba tuub allahu akbar benn boo xam ne ñu at mi daawu ci wax lu dul benn fan waa xëy na wax ju am njariñ lañ bëgg wax wala boog euh, wax laa kulli li yitteel ci xisa rek mooy mooy lim dénkaane nee na benn waaye nag xaar ba bis bi nga xam ne ca lay waxe mu ñëw ci moom ne ko damaa bëgg nga dénk ma mu ne ko ndax xam nga ne mas nga euh, ndax mas ngaa def bàkkaar mu ne ko ah hmm. mu ne ko kon de xanaa wóor na ne yàlla bind na ko mu ne ko ah loolu mu wóor na ma mu ne ko na jëfaat ba mu ne yàlla far allahu akbar waaw nim la wóor ne boo defee bàkkaar moom xam nga ne bu dee ni ko alxuraan waxee te loolu moo am dañ la koy bindal loolu leer na la léegi jëfaatal rek daal del tuub di jëf lu baax di def lu wuuteeg moom ba ba mu wóor ne ne yàlla far na ko nam la leer la woon nam la leere woon ne bind na ko ma koy lii waaraat waaraate bu rëy rëy rëy la rëy rëy rëy ndeysaan mhm. xam-xam yi nag danañ di jàngale boo tuubee ay màndarga yi wane ne saa borom jéggal na la bàkkaar ba ay màndarga ay màndarga ndeysaan yooyu xëy na mënuñ caa euh, mënuñ caa sori te bokk na ca màndargaay rek màndargaay rek mooy fu sa xel demee ci jëf ja nga am loola metti waaw mooy yàlla ga nga moyoon yàlla saa yoo ko xalaataatee euh, am loola metti lool loolu day wone ne yàlla jéggal na la waaw ak jubbanti ko meloon léegi da ngaa daal di soppi soppi gi nga soppi léegi nga xam ne fas yéene woo defate lële day war a nekkoon lële yàlla yàlla yàlla yàlla jéggal na ak yu bari lay sànni. waqiila waxees na li baadihim leel ñenn ci ñoom waroom xam-xam yi ne ko maa a maa ajabul ashyaa yi lan moo gën a yéeme ci mbir yi xaala mu ne shay'un waahid menn mbir waxoote moom xalbun mooy xol boo xam ne arafa allaha xam na yàlla suma asaahu topp mu di ko mooy waqiila waxees na ne azamu naasi gën ngaa màggi nit ñi xadaran ci daraja man laa yóbbaale mooy koo xam ne du faale bi dunyaa ci àdduna fii di man ana ci loxol kan kaana la nekk wa ajwadu naas ki gën a tabe ci nit ñi rajulun waahidun génn góor la waxootu moom mooy benn waay la moom man jaada mooy ku tabe min xillatin ci lu néew wa aswadu wa aswau naasi ki gën a ñaaw ki gën a bon ci nit ñi rajulun waahidun kenn la waxootu moom allësi mooy waa ja nga xam ne laa yasiqu du wóolu du dëgërlu bi ahadin ci kenn li suu i wannihi ngir ñaaw ngir ñaawal njortam wala yasiqu te du te du wóolu bihi ci mu ahadun kenn li suu i fi'li ngir ñaawul jëfam allahu akbar wa aasul asiyaa yi li gën a jëfe ci mbiri nag axun mooy mbokk mbokkum jege ñaale muwaafiqun bu aji dëppoog yow <laughs> nee na benn boroom xam-xam dañ ne ko waaw lu gën a yéeme ci àdduna mu ne ko xam yàlla ba noppi di ko mooy xol bu xam yàlla xam na mooy yàlla mooy kenn moo yeyoo nàngam mooy ku màgg ki moo ko defal nàngam moo def nàngam moo yeyoo màggal nit ki boole loolu lépp xam-xam nag wëlbati ko nag sànni teg ko mooy yàlla loolu mooy li gën a ci àdduna waaw gën a yéeme eh, ci àdduna nee tamit nee nit ñëpp ki ci ëpp daraja mooy ki nga xam ne dafa woyofal àdduna ba faaliwul sax àdduna ci loxol ku mu nekk maanaam kan moo yore àdduna ku ko yorewut moom bàyyiwu ko xel waaw ñi jékku àdduna ñi ko jékkuwut moom yoonam liwul ci lool lijjantiwu ko nee kooku moo gën a rëy ji ci nit ñi ndax adduna daa neexut a du nag ki gën a tabe nee kenn rek la mooy ki nga xam ne tabeem day feeñ ci lu néew maanaam ba mu amagut la ñëpp xam ne kii ko tabe la xam nga denc banque boo wax dëgg ñaar fukki million euh, ko mën a saraxe am ñu aw ñaar téeméer nga ne moom xam ne lii muy saraxe du ko wàññi dara nga xam ne lu mu denc waaye kéemul lu dul dara lu néew nit sañ koo laaj mu sañ ko ko euh, am am am xoolu yëkkati jox ko ko ah. wa yutcimuuna taama ala xubbihi miskina de waaw waaw xool loo bëgg lan tanaalu albirra xatta tunfiqu mimma tuxibbun alxuraan nee na ak mbaax moom dëgg dëgg doo ngeen ko mën a am lu da ngeen fekk lu ngeen bëgg lool ngeen jël ko joxe ko ngir mooy tabe loo xam ne xam nga ne lii doom nga am su ma ko joxee fa ma koy jëlewaat wóorugu la nga joxe waaw nga jël joxe nit ñi nag dañuy denc ba mu wóor leen ne ni moom lii moom du jeex ñu doo ko mën a joxe nag wala boog ñu ne ëmma weccat noonu Sénégalais tàmm nañ loolu ku sàkku ci dara rek eh, da ngay làmb làmb génne ñaar téeméer génne ab téeméer génne cinq mille génne dix mille eh, daan ko jéggal ma awuma weccat mooy aw ñaar fukk laa laa doon seet moom laa la bëggoon a sarax te gisuma ko waaye yëkkati ab téeméer wala ab junni wala nangam saraxe ko day mel ne kon nee na ki gën a tabe ci nit ñi mooy man jaada min xillatin dafa tabe ci lu néew ki gën a ñaaw jikko ki gën a ñaaw jikko mooy ki ñaaw njort ba wóoluwul kenn waaye tamit kenn wóoluwu ko ndax jëf jëfam ju ñaaw <laughs> waaw moom daa ñaaw daa ñaaw njort moom moom wóoluwul kenn moom jëm boppam waaye nag nit ñi gis ci moom jëfam nit ñi bi xoolee ay jëfam tax na kenn wóoluwu ko nee na kooku daal mooy ki gën a ñaaw jikku ci nit ñi waaw ki gën a bon nee na ci li gën a jafe nag mooy nga am sa mbokk mu la jege eh, lu ëpp sa eh, baay sa sa sa sa doom wala sa mag wala nangam joo xam ne da ngay ne dëppoo déggoo lu ci ëpp lu ci ñi bokk ndey ak baay na toxo sax ñaar ñi nga xam dañoo sosaloo lu ci ëpp rek duñ bokk jikko waaw dañuy xuloo rek waaw nee mbokk moo xam daal da ngay ne dëppoo nee na loolu dana am waaye daa bëriwul waaw xëy na ngaa doon bàyyi joo xam ne yaa ngi julli di def lu baax def nangam bëgg nangam nangam waaye yàlla dalee lay noonu nga am doom joo xam ne tawarkàlla nga naan man daal kii xuma fu mu ma toppi waaw man de xuma sa ni nga mel xuma foo ko doon ne du sa ndey nangam nangam sa mag ak sa rakk yi tamit gis nga loolu la ciy am da ngay rakk joo xam ne wax dëgg yàlla day xaw a sàggan nangam nangam da bëgg lii mu bëgg lee du fonk lii du fonk lee du fonk nangam dalay jaaxal lool nga naan gone léegi nangam nangam waaw loolu lu jafe la joo xam ne ni nga bëgg mu mel lay mel ci côté baax ak am jom am liggéey ak nangam waaw mu daal day jënd ay iPhone photo dem naa nangam ba nangam nangam nangam moom loolu lay bëgg yëf yu sew yëf yu suufe lay bëgg. waaw mais loolu tamit lu jafe la waxaala waxoon na alxakimu aja xam ja xikam li tilmisihi ñeel dongaam ba ne ko i'lam na nga xam ne na annahu naka li am ba am daal mooy laa anfaa laka amul ku la gën a jariñ min sadiqin waxidin ci benn xarit waxatum wa àquloo ko mooy sama xel wala wala racha amul ku gën a kooj amul ku gën a mën a wor laka ñeel la min aduwin waxidin ci benn noon waxoo te moom jaxluka mooy sag réer wala ak zabalaka amul ku la dàq fen maanaam koo xam ne dalay fen yow <clears throat> min aduwin ci ab <clears throat> ak zaba ci benn noonu waxoo te moom amalu ko mooy sa mébét yaakaar di teg rek wa wax fa nanga nga wattu min dunyaaka ci sa adduna shay'an waaxidan benn menn mbir waxoo te moom ala afaafu moo de doylu mooy fegu waxlib na not tawaariqat nawaibi way reñaani xew-xewi jamono yi maanaam wëlbati wëlbatiku xew xew jamono yi nawaib mooy bu tayee lii xew bu liggéey lay xew ne nang leen note bi shay in waaye dañu menn mbir wootuma asabru mooy muñ wata zayyan na nga waaje bay na naas ci diggante nit ñi bi in waaye da ci menn mbir mooy na nga sañsee wootuma alkaramu moo di tedd nga ak akuk tab wata wadda waaw ah, wata wat na nga sopp sopplu bay na naas ci diggante nit ñi bi shay'in waahid ci menn mbir waxatu mu tarkul xasadi mooy bàyyi kiñaan allahu akbar benn xakim da doon wax ab taalibeem ne ko xamal ne kenn ki nga xam ne mooy sa xarit bi nga xam ne kenn mënu laa jariñ la jariñ moom mooy sam xel wax na dëgg ah, sam xel sa xel nii mooy sa xarit bi nga xam ne amul kenn ku la mën a jariñ ba dax ko la ko jariñ sa xel nii ndax soo yoo ko jëfandikoo rek moo lay dimbale ci lu bare bare bare waaw moo lay génne ci yu bari moo lay xamal lu baax moo lay xamal lu bon moo lay xam ne lii neex na nii rek waaye mujj ga baaxut lii dalay teg gàcce lii nangam sa xel moom kon na ko fonk de te di ko jëfandikoo ci anam ku baax te moo yàq amul kenn ku la dàqa war ci mboolem sa xeeti noon yi lu dul sa noon bi ñuy tëdd sa réer waaw réer ñàkk xam ñàkk xam lu doy waar la moo tax rek wutal xam-xam mooy ngànnaay mooy armo bi gën a wóor mooy armo bi gën a wóor moom ñàkk xam moomu tabarkàlla nee na tamit euh, amul ku la dàqa fen amul koo xam ne day ñëw ci di la fen di la fen lu dul sa benn noon te moo di say mébét mooy li nga yaakaar di teg rek di yaakaar maanaam loo xam ne amagut ñi nga di ko móol di teg rek waaw di móol di teg <laughs> loolu wóor li gën a wóor mooy nga liggéey li gën a wóor mooy nga liggéey ba yëf yi am euh, euh, euh, réalisé ay am xam la ko mooy ay rêve rek rêve rêve rêve waaw waaw su ma defee nangam dem nangam nangam nangam dajale am fii am fii nangam di wax di wax di dajale nii te loolu dara amu ko ca nee na loola sa mboolem noon yi nga xam ne dañ lay fen di wax lu dëgg sa sa mébét yooyu moo ca daq wax lu du dëgg sa adduna nee na boo ci mënta ñàkk a bu ñu la wax ne la adduna jël ci daax kese kese doo jël leneen jëlal doylu hmm. xew-xewi jamono yi di soppiku bu tayee lii euh, am natt dal sa kaw nee na kenn rek moo la ci mën a musal mooy muñ mooy mooy muñ boo bëggee dund ci nit ñi ci jaam ak salaam nag na nga dund ci ñoom doylu ak tabee rek na nga nekk ku tedd ci ñoom koo xam ne doo leen soxlaal di leen di leen laaj dara waaw te ñoom lépp lu ñu soxla boo ko mënee nga defal leen ko rek ngir yàlla kooku nit ñëpp dañ lay euh, bu nit ñëpp bu nit ñëpp di wuti ay sañse yow wutal sañse boobu nga sol ko nee boo bëggee nag nit ñi sopp la ba tey waaw nee na da fexe ba wala boog yow nga sopp nit ñi boo bëggee yàgg sa diggante nit ñi daal ñu sopp la nga sopp leen nee na bàyyil iñaan waaw lu ñu am rek yéene leen ko ndeysaan lu ñu am yéene leen ko wakaana nekkoon na aliyun sayyidina aliyun karamallahu wajhahu yasalu daan laaj ani shay'ayni ci ñaari mbir qabla shay'ayni laataa ñaari mbir sayyidina aliyun radiyallahu anhu waaw nee na ñaari mbir daana ko laaj balaa ñaari mbir di ñëw bu njëkk mooy añi rafiqi walis àndaale ja waaw ka koy accompagner qabla tariqi njëkk yoon wa waaw wa anil jaari ak walis dëkkandoo ba qabla daari njëkk kër ga maanaam sayidna ali radiallahu anhu bu masaan buñ ko masaan tegal ab tukki danaan déet bala ngeen wax tukki bi leer leen ma ko may àndal ba noppi maanaam tànn day tànn ka muy àndal ba noppi nga xam ne ñoo xam ne ànd ak ñoom kon day tànn ab àndaale bala moo tànn bala moo tànn ak voyage aw yoon bala ñu ko jaay kër wala ñu ne ko kaay ñu may la fii pàkk wala nga dëkk fee day xool ña fa dëkk ba noppi waaw ah, su ma lay dëkkal xool ñooña ba noppi loolu am solo la léeg nga dëkk foo xam ne dëkkaale yee tabarkaal la <laughs> léeg-léeg ngay tukki ànd ak koo xam ne dana yàq sa tukki bépp wala sax mu mooy loolo yàlla wala mu def loolu loo xam ne ab àndandoo bu bon rek moo la ko teg waaw loolu boo siiw na al jaaru qabla daari bala ngay wala nga fay jënd kër xoolal ña nga war a dëkkal ba noppi alhamdulillahi alkarim silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lianu xad saxani liwatani bi nafa ma anfani